enveloppe nag bu toll ci juróomi téeméeri junni ci suñuy koppar nag ngir dimbali centre bu étude scientifique ak technique bu yor wàllum information di CESTI boobule koppar nag télédiffusion bu Sénégal TDS moo ko génnee ci poosam ngir dimbali ko ci jafe-jafe yi nga xamante ne amoon na ko benn fan jëm ñaari fan ci weeru juin bi ñu génn mu di nag mbir yi nga xamante ne directrice bi la bërëb di ko ñaawlu bu baax. feddali suñu kóllëre ak CESTI mais aussi massawu CESTI. Euh, ki yàlla teg ci boppam euh, ba ki nga xamante ne nii moom moo fi gën a ndaw ci wàllu dayoo. Euh, mu nekk ci contexte boo xamante ne nii TDS ñëpp xam nañu ne am na ay jafe-jafe ci wàllu koom waaye terewul dañu ne li nga xamante ne moom mooy effort ci li nga xamante ne nii moom mooy suqali sës si mais surtout ci jàppale. parce que lépp solo du xaalis bi lépp solo mooy geste bi lépp solo tamit mooy wax ne dara tuutiwul. li dal CESTI nag métti lool naka noonu ay étudiant wam direction bi nag di rafetlu bi le taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko naka noonu yeneen. ñëw na fi mu war a ñëw bu ñu weesoo loolu euh, li dal CESTI nii euh, ñun dañ koy sant yàlla parce que daf ñu fekkoon ñu nekk ci projet pour yokk dayoo école bi pour fexe ba doomu Sénégal yu gën a bëri mën a dugg fi mën fi am formation. léegi euh, ñi nga xamante ne ñoo am diplôme bi si mooy lay diplômé ñoo jóg def benn cagnotte boo xam ne ñi ngi nekk di ut ay ndimbal pour mën a def liggéey bi ni mu waree. mais ñun pour l'instant ci collecte bi li ñu jot a jot si ndimbal mi ngi toll ci fukki million ak juróom-benn. xayma yi ñu am yi njëkk nag ci dégâts matériels yi toll ci 200 millions ci suñu koppar.